salut les amis ziar naa leen bu baax a baax daleen ak jàmm ci seen podcast Wolof Tech bi leen jox lépp lu jëm ci wàllu informatique ak nouvelle technologie maanaam xarala yu bees ci kàllaama wolof. alors comme ni ñu koy defee nag chaque mercredi dañuy découvrir ay talent yu bees wala ay initiative wala aussi ay événements yoo xamante ni mu ngi xew fii ci suñu réew wala ci dakaar sax wala Sénégal wala un peu partout sax ci Afrique alors loolu moo tax nag tey euh, ñu dalal ñi nga xamante ni ñoo nekk ci benn événement ginnaaw benn événement bu rëy boo xamante ni dañ koy organiser Dakar nekk Dakar Bitcoin Day alors lan mooy Dakar Bitcoin Day fan la initiative boobu jógee lan moo ko tax a jóg ak lan la ñuy waajal le premier ak le 2 décembre. alors pour waxtaan nag ci loolu yëpp nag dañ ciy ànd ak suñu invité tey yi nga xamante ni ah, mooy Idrissa Seck ak Sébastien Ramos nga xamante ni ay cofondateur événement bi leen ah, te ñoom ñoo nekk ginnaaw Dakar Bitcoin Day alors Idrissa Seck ziar nañu la dalal ak jàmm ci podcast Wolof Tech salaamaaleykum euh, Ibou delloo ziar bu wér maa ngi nuyu sa sa auditeur yëpp mais nag del wax Idi rek boo nee Idi sa sec dem ko euh, <laughs> gars yi ñu politicien bi la quoi waaw waaw waaw <laughs> baax ne Idi rek moo moo gën a wóor quoi ok ça marche amul benn problème <laughs> ok en merci pour euh, mhm. invitation bi maa ngi tudd mhm. Idi Seck mhm. di jeune sénégalais di yëngu si wàllum crypto-monnaie, euh, principalement Bitcoin, depuis bientôt deux ans. Euh, bokk si aussi ay communauté euh, ici au, au Sénégal yoo xamante ne dañuy euh, yëngu si lépp luy wasaaral xam-xam bi au moins faciliter compréhension bi. ñu créé nag euh, événement depuis daaw bu tudd Dakar Bitcoin Days. Mm. moom la waxtaanee tey incha allah. macha allah merci beaucoup Idi euh, franchement merci beaucoup ci invitation bi ak tout ça alors suñu deuxième invité bi nag ba léegi moom mu ngi bokk ci groupe bi mu ngi tudd Sébastien Ramos Sébastien ziar nañu la bu baax a baax dalal ak jàmm ci podcast Wolof Tech. asalaamaaleykum Elie maa ngi bu baax teeloo leen si di nuyu bépp auditeur bu ñuy déglu tey ak bu ñuy rejoindre ci initiative bi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci invitation bi ngir xamal déjà suñu initiative bi ak buy permettre tamit suñu mbokk sénégalais yi ñu gën a gëstu ci ci bitcoin kon man maa ngi tudd Sébastien Ramos bon ñi ma xam ñi ngi may gën a woowee Seb moo gën a yomb tamit mm-hmm. wala Ramos sax mm-hmm. ci ñeneen maa ngi nekk jeune entrepreneur sénégalais di bon di taxawal yoo xam ne daal dina jàppale ñi nekk ci réew mi ci mbirum euh, technologie ak affaire yooyu mais ñi ngit maa ngi tamit ci promotion wu bitcoin maanaam xamal bitcoin suñu mbokk yi ak xamal njëriñam bokk naa tamit ci yeneen association yu ci wàllu crypto monnaie bi parce que suñu activité principale ñun bitcoin la mais daanaka tey crypto monnaie xëy na gaa yaa ngi siy gëstu et tout il faut ñu taxawu leen pour ñu bañ a ci yenn arnaque yi wala yenn mhm. problème yu mel noonu. ok mhm. moo taxoon tey tamit ñu rejoindre le fii pour gën leeral déjà événement bi ak gën a waxtaan ci bitcoin. Mhm. macha allah je pense que bu ñu jógee tey ci épisode bi nii ñu bëri dinañ comprendre Dakar Bitcoin Day mooy lan euh, mais aussi dinañ am benn aperçu ci Bitcoin yi waajal nag li nga xamante ni moom ngeen di war a euh, ngeen war a teg incha allah le premier ak le deux décembre incha allah. alors ñu dem donc suñu épisode tey bi découvrir Dakar Bitcoin Day lan lañuy waajal décembre. Dakar nag euh, dëkk la boo xamante ni siiw na trop ci àdduna ndax suñu euh, borom xam-xam yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekkoon maanaam artistes yi mën a nekk sax écrivains yi historiens yi sportifs yi ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni je pense que ñoom ñoo yóbbu turu dakaar tey wala Sénégal fu sori ci àdduna alors jamono yi nag comme ni ñu koy waxee euh, technologie ak maanaam xarala yu bees yi dafa xew maanaam dafa lëmbe àdduna moo tax tamit dakaar desul ginnaaw ci loolu donc ay ndaw yoo xamante ni dañoo gëm xam-xam jàpp ne aussi wala xam ne aussi xam-xam kese moo mën a doxal réew dañoo jóg dañuy jóg saa su ne fii ci dakaar wala sax ci yeneen région yi di wasaare xam-xam boobu ngir ñëpp mun cee jot. alors le premier ak le 2 décembre bii nag ñuy dëtmal dakaar day wane aussi day wane waat boppam. ci événement bi nga xamante ni euh, moom mu ngi tudd Dakar Bitcoin Day comme ni nga waxee ci introduction bi te euh, ñii nga xamante ni ñoom laa invité tey nekk ci ginnaaw alors ñu fas yéene nag wasaare ci événement boobu noonu lépp lu jëm ci wàllum Bitcoin alors Sébastien est-ce que mën nga ñoo fàttali tuuti sax avant ñuy dugg ci biir émission bi lan mooy euh, Bitcoin wala lan mooy crypto-monnaie sax d'une manière générale ak lan mooy njëriñam. d'accord daanaka bitcoin ki ki ñu ko fi bàyyi maanaam ki ñu ko defaral bàyyi ñu ko fi. Mhm. mi ngi tudd Satoshi Nakamoto. ok ba tey kenn xamu ko. Mhm. dafa def maanaam daf ñu ko defaral tenk lépp bàyyil ñu ko nee ñu léegi maa ngi di bàyyil loo xam ne mën ngeen ko njëriñoo askan bi yëpp adduna bi yëpp mën na ko njëriñoo mu tuddee ko maanaam mu mu mu définir ko comme benn moyen wu ñaari nit mën a weccoo xaalis wala mën a yónnante xaalis te benn banque du ci bokk maanaam du am keneen kuy taxaw seen diggante parce que dafa dem ba gis ni biñ tollee ci crise u 2008 bi nga xam ne àdduna moom lépp lu jëm ci wàllum finance demoon na ba toll foo xam ne métti woon na ci ñëpp dëkk yëpp ko yëg mu demoon ba ne bon fuñ toll nii banque yi maanaam ñi taxaw suñu diggante ci mbirum weccoo koppar ak affaire yooyu noonu dañuy fooyee suñu alal léegi il faut il faut ñu xalaat ci benn système boo xam ne bépp doomu Adama dootul soxla ñooñu sa xaalis day jóge ci yow dem ci keneen directement te te du am kenn ku nekk seen diggante mën a jël xaalis boobu foo ci pour jëm ci am dara wala lekk ci dara avant muy muy réaliser loolu moo war a def. transaction kon bitcoin à l'origine logiciel la maanaam xarala la benn technologie la boo xam ne dafa am lu muy lu mu ñu indil lu simple maanaam jëlee xaalis mhm. ci gox bi mhm. yóbbu ko fële mhm. loolu kese la mi ngi koy définir suñ ko naree wax ci nasaraan un système de paiement euh, électronique de pair à pair maanaam nit ak nit directement ñu mën a weccoo échanger yónnante xaalis loolu mooy bitcoin loolu mooy fonction première loolu mooy fonction bitcoin sax moo tax tey ñu créé ko. ok ok ah je pense que euh, déjà réponse bi nga joxe ni am na solo trop sax déjà li ma ci njëkk marqué rek mooy def ay paiement wala yónnante xaalis ba nga xamante ni kenn du nekk ci diggante bi du banque du benn agence du benn ay. voilà comme ñu fi nekk ci dëkk bi di ngay jaar seen plateforme yi pour xaalis donc du coup tey Euh, di nga mën a envoyer sa xaalis te du jaar banque te je pense que ñëpp xam nañ li nekk ci banque ak seen voilà xam naa loolu moom beneen épisode spécial lay doon xam na <laughs> tu vois boobu secteur banque. <laughs> non boobu benn chantier bu ngand la boo xamante ni foog ñu invité la ci yow idi ngeen tojal ñu ko <laughs> après événement bi. wala ci biir événement bi incha allah mais donc du coup euh, tey yéen je pense que <clears throat> xamle euh, bitcoin boobu noonu ak ay njëriñam. ak euh, li muy li muy euh, li muy jëriñ général moo tax ngeen euh, ngeen initier lii yëpp mais mais déjà bëggoon naa xam Idri Idi bon comme lu ñu wax Idrissa nañu wax Idi alors bëggoon naa xam déjà Idi <laughs> alors seen initiative Dakar Bitcoin Day boobu fan la jógee naka la def ba juddu dangeen ngeen toog rek xalaat ko nii naka la def ba juddu ak lan moo nekk objectif principal initiative boobu noonu. waaw question bi am na am na solo mm-hmm. di aussi euh, jaajëfal Sébastien si définition bi mu joxe bi am na solo lool c'est c'est très important d'autant plus que li mu wax ni c'est bitcoin euh, euh, entre nit ak nit la sans intermédiaire loolu am na solo lool te dañuy faral di ko fàtte fàtte boobu nag moo tax il y a quelques années ay côté deux mille dix neuf deux mille vingt genre yooyu ñu gis fii euh, benn phénomène maanaam ay plateforme euh, d' investissement yu mel ni ay PetronPay ay ñoom Lieplimal bëri na y en a des des chaque jour mu am bu kii léegi nag plateforme yooyu am benn impact négatif si dëkk bi surtout si si jeunesse mais si. du du du jeune nii rek ñoo si doon dugg. Mhm. même mag ñi dañ si doon dugg di di si invest. Mhm. ñu leen naan euh, kay dugal temps. Mm-hmm. chaque jour nga am tant de pour cent. Mm-hmm. fekk loo def dara xam nga loolu a yomb. Mm-hmm. man nag euh, pour rappel loolu laa duggee si mbirum crypto monnaie euh, sama benn connaissance sama benn grand moom ma invité woon nee ma kaay am na investissement boo xamante ne bon c'est c'est rentable vérifiable maa ngi nii dugg naa ci maa ngi am temps. et puisque période boobu bon man maa ngi doon liggéey mais dama doon wut ay euh, revenu euh, passif maanaam euh, investir fekk du la yàqal dara si sa liggéey ma mhm. ne lii de am na solo xaaral ma mhm. testé mhm. ma dugg testé xool gis ni aussi maa ngi maa ngi retiré noonu daal ci laa ci duggee bon après di nga gis ni li nekk ci ginnaaw ay ay arnaque la am na lu ñuy wax ponzi maanaam di di nax gars yi di récupérer xaalisu ñiy ñëw ñi di ko fayee ñeneen ñi. waaw mm, ah, di la fay xaalis mm. gëmloo ni la sa investissement moo la jural alors que xaalis boobu si gars yi ñëw investir la jóge donc plateforme yooyu di di di di di di bëri si dëkk bi gars yi di si dugg di dugg plateforme bu tëj xamal ni il y a des centaines voire des milliers de d'investisseurs yoo xamante ne ñàkk nañ seen xaalis te li gën a yéeme mooy dañ lay woo ne la euh, investissement en crypto-monnaie moo tax ma ne définition wu Sébastien bi am na solo lool c'est de pair à pair sans intermédiaire donc képp ku ñëw si diggante bi nee la kay investir jàppal ni ki mhm. intermédiaire la mhm. donc mhm. mbirum cryptomonnaie mhm. du du fowukaay du en tout cas pour ñi responsable da lay responsabiliser sa xaalis yaay borom yaa koy gérer sa bopp donc loolu boo ko xamul dès le début mën nga mën nga dugg si ay pièges yoo xamante ne day day yéeme récemment gis nañ fi ay plateforme yu yu scammer ay EFPC euh, et consorts gars yi ñàkk ci ay centaines de de millions de francs CFA alors que xaalis boobu noonu mënoon na euh, financer yeneen projet mënoon na tax ba yenn jeunes du ñu jël gaay yi kii noonu en tout cas xaalis boobu xajoon na feneen mm-hmm. Mm-hmm. léegi ñooñ dem di dugal foofu seen xaalis mm-hmm. am na information yu ñu amul xamuñu jéemuñu gëstu si crypto monnaie jéemuñu xamuñu sax ni bitcoin moo jiitu Mm-hmm. ñoom daal gis nañu dégg nañu crypto monnaie dégg nañu. Mm-hmm. Euh, plateforme yooyu rek. ci dugg ci plateforme ñu ne xaaral ma dugg gaaw mm-hmm. fekk duñu informé wu. ñun nag millions yi millions yi gars yi <laughs> millions yi waaw effectivement yi ñu yombee man je me souviens amoon naa benn jarbaat boo xamante ni un deux mu ñëw ne ma di jaay euh, xoolal kii nu mu tuddati euh, pétrole pays non damay am ko ah! <laughs> mais man en tant que ku am background un peu mm, des trucs de sécurité affaire yi sama xel dalul toon ci loolu dara que dama ne en fait la vie n'est pas si facile que ça quoi. tu vois cest toog sa kër dugal sa benn am sa benn trente mille quarante mille muy. Mhm. te tu fais rien amoo benn visibilité ci <laughs> activité bu ñuy def tu vois. alors mhm. mhm. ay nit la ñoo xam ne dañoo surfer sur la vague. di créer ay sites. parce que lépp ay données la ah. dañuy créer benn site comme yow nii tu es dans les technologies nga ne boo xam def benn page web créer benn concept wax gars yi investissement crypto ma leen di afficher la ay chiffres ah ouais. c'est tout c'est tout base de données ah booy manipuler la nga ne bon kii dugal na dix mille. Mhm. yow suba nga affiché ko onze mille. ginnaaw <laughs> suba nga affiché ko douze mille jeex na mais xaalis bi mhm. nekk fi yow yaa ngi jël xaalis bi nit yi. Ah foowee ko wala nga jékki-jékki tëj nga dem. mais donc nag d'où l'importance tey loolu moo tax indi njëriñu tey seen teewaay fii je pense tey parce que leeral nit ñi ne leen euh, cryptomanie dañ ko associé woon ak benn image boo xamante ni baaxul tu mais il faut que tey mhm. kon Sénégal ñu corriger waat loolu li may faral di wax à chaque fois mooy que ni innovation bonul mais ni ñuy utiliser innovation boobu d'habitude moo bon tu comme ñu euh, passé rek ñu maa ngi koy wax ci benn émission ñu ngi wax euh, non non euh, benn rajo bu ñu ma invité woon la ñuy wax ci affaire intelligence artificielle mais leen intelligence artificielle en tant que telle baax na mais ni ko nit ñi nar a utiliser ak ni ko nit ñi nar a diaboliser des fois moom moo bon mu ngi mel ni paaka rek di biñ koy defar xalaat ko ci rey ay nit mais c'était pour dagg mm-hmm. mais di nga gis koo xamante ni mm-hmm. day jël paaka bi di def rey ay nit mais loolu taxu ko jóg mais cela ne veut pas dire que paaka ba mm-hmm. fa bon donc cryptomanie au contraire innovation bu mag la donc nag tey foog ngeen wax ma tey naka ngeen def tey ba indi xalaat bi pour defar Dakar Bitcoin Day parce que Dakar déjà comme ni ma ko waxee ci introduction bi ñëpp xam nañ ko ci àdduna bi tu ci ay événements yu mag yu muy organisé et tout ça et tey Dakar Bitcoin Day bi ñu def ci bokk et naka ngeen def ba am idée boobu. bon idée boobu en réalité mi ngi jógee ci ku ñuy wax Mouhamadou Kouta. Mouhamadou Kouta ñu koy gën a xamee ci. écosystème bi comme nous malheureusement il n'a pas pu être présent parce que fu mu ne nii nekkul Dakar okay. mais dinañu rejoindre incha allah pour événement bi ok kon moom bitcoineur la depuis 2017 la dugg ci bitcoin di si gëstu di xalaat di jàng parce que moom euh, jàll na ay formation même parce que tey am na ay bërëb yoo xam ne dañ lay former ci bitcoin maanaam jàngal la bitcoin former la pour que yow nga mën ci liggéey sax di si fayeeku parce que tey comme ni ñu ko waxee comme xarala la am na ay organisation yoo xam ne dañ siy liggéey am na ay développeur am na ay marketing c'est-à-dire tout corps de métier tey mën nga liggéey ci ay affaire u bitcoin marketing entreprise yuy développer ay produits autour parce que bitcoin boo xoolee euh, pierre brute la léegi tout autour am na écosystème bi gars di di tabax am na ñoo xam ne tey jii ñu ngi def système mu tontine comme Afrique affaire u tontine daf fiy dox. Mhm. natt. Mhm. am na ñoo xam ne ñu ngi defar ay système yoo xam ne da ngay defar sa natt ci bitcoin. comprendre am na ñeneen yoo xam ne ñu ngi defar ay moyens pour yónnante xaalis facilement autour en utilisant xarala bitcoin protocole bi ci boppam logiciel bi et cetera kon kooku loolooy parcours am bi mu demee ba ci biir nag gis ni fépp ci àdduna. dafa am ay conférence bitcoin pour nit ñi di di jàngal seen mbokk yi wala di xamal bitcoin seen mbokk yi mu ne mais pourquoi pas ñun ñun tamit ñu def ko Sénégal jëm ko def affaire boo xam ne day regrouper Afrique francophone bi Afrique de l'Ouest bi yëpp noonu la affaire bi départ léegi moom bi mu ñibbisee Sénégal mhm. deux mille vingt naa mhm. ci la am idée boobu mu ne bon damay commencer parce que dafa doon def tamit ay meet def nañ ay meet-up bitcoin boo xam ne c'était mensuel man ñoom grand idi dañ fa doon dajee maanaam de ça a permis ñuy dajale bépp personne boo xam ne mi ngi yëngu ci bitcoin fii ci Sénégal léegi bi mu demee ba gis ni bon kii ak kii ak kii ak kii su ma waxee ak ñoom xëy na affaire bi dina mën a taxaw moom mu woolu mu wooñu ne ñu bon am naa idée tel idée tel ñu ne ko bii c'est excellent mhm. noonu la affaire bi nag tey mhm. mën a taxaw ba toll fi mu toll nii macha allah ça c'est bien ça c'est très top Euh, je pense que amoon na euh, première édition bu ngeen njëkkoon def tu vois et quand je vois su ma gisee chiffres yi tu vois euh, franchement dama chapeau te xam naa ne ren mooy gën a garaaw ren mooy gën a dem fu gën a garaaw tu vois Euh, ah, je pense que première édition bi je pense qu'il y avait vingt neuf speakers voilà avec des ouais. partenaires internationaux yoo xamante ni ñëwoon nañ ci affaire bi euh, il y avait eu mm-hmm. plus de trois cent quarante six participants pendant les deux jours ñëpp ñëw ak li ma ci gën a impressionné si y avait plus de trente sessions tu vois et ça c'est c'est extra j'imagine xe euh, euh, xam-xam quantité xam-xam bi fa war a tuuru keroog c'était extraordinaire et je pense que tey képp ku bëgg xam ci ci mbirum bitcoin yi davantage waxuma la war nga ñëw ci euh, Sénégal kese sax mais ñu nekk ci sous région bi sax euh, voilà sénégalais yi nekk fépp ci ci war nañ mën a ñëw Dakar tey jàppale Dakar ci affaire boobu noonu euh, parce que lii la boo xamante ni lu am solo la mais alors li ma bëggoon xam beneen question bi mooy édition bi passé comme ni ma ko waxee léegi chiffres yi c'était extraordinaire mais lan ngeen ñu waajal pour événement wu bii nii maa nga xam ne ni mooy am ren naka ngeen bëgg def ba parce que gis naa ci thème yi thème bi que ne ah da ngeen bëgg fexe ba PME yi nga xamante ni nekk Sénégal mën a euh, jaay seen bopp ci àdduna bi à travers Bitcoin loolu naka lan lañ war a xaar ci événement bi ci lu bees ci euh, ci ren ci édition deuxième édition bii nii. waaw euh, mm. Ibou question bi am na solo. Mm. déjà côté PME yi. Mm. mën nañu wax ni opportunité la si ñoom déjà Bitcoin mhm. c'est c'est mondial mhm. Bitcoin amul benn limite euh, géographique mhm. donc loolu euh, aspect bu bu am solo la donc PME yi mën nañ def ay transactions euh, étrangères sans sans limite déjà ni nii nii boo bëggee def yenn opération si banque yi dafa am ay limite si montant yi si si si la enquête ne temps tel de tel montant foo nga joxe tel justificatif ak yooyu noonu beneen bi mooy aussi délai yi euh, ñëpp xam nañ ni PME yi entreprise yi tout ça délai yi c'est c'est primordial boo waree jef benn transfert mu def ay une semaine dix jours loolu day impacter si sa si sa chiffre alors que Bitcoin en moins de dix minutes ki nekk fële jot na euh, transfert bi te mhm. c'est sécurisé. Mhm. amul benn blocage. Okay. essentiel na nga jël matukaay yëpp pour euh, au moins euh, xam ki ngay yónnee euh, bitcoin yi kan la donc loolu c'est c'est une opportunité pour les PME. beneen bi mooy du du rek PME yi y aussi les les étudiants euh, entreprises yi étudiants yi ñëpp ñëpp daal dinañ ci gis seen bopp. Mhm. Bitcoin. Mhm. opportunité yi dafa bëri. Mhm. déjà là gis nañu. Euh, communauté anglophone yi raw nañu bu baax a baax a baax donc loolu aussi bokk na si li tax ñu créer Dakar Bitcoin Days au moins communauté locale bi ñu am les bonnes informations soit en français mhm. soit en wolof. Mhm. macha allah loolu lu am solo. di nga ah, gis bi nga mujj nga waj bi nga mujj wax intéressé na ma trop quoi. <laughs> wolof bi waaw. donc <laughs> <laughs> même daaw amoon euh, session en wolof. mais puisque information bi kiwul woon trop. gars yi euh, ñëwoon si wolof bi c'était pas c'était pas conséquent. donc moo tax ren ñu bëgg beneen innovation yi par rapport ak euh, daaw mooy communication bi euh, dañ ko dénk benn équipe bu koy gérer mooy ñoom Bamba. donc communication wu ren bi am na am na changement bu bu baax macha allah macha allah waaw. donc communication bi par rapport à sa wolof bi. Mhm. Euh, gars yi dinañ ci am seen seen wàll. Mhm. Euh, PME yi aussi. Mhm. étudiants yi. Euh, ya a aussi benn école bu mag bu nekk en France boo xamante ne day joxe ay formation ci lépp luy blockchain te xam nañ ni ku formation yi dafa cher donc négocier nañ ak école boobu ba mu wàññi tarif yi. pour au moins mu méngoo ak suñuy réalité donc loolu opportunité la yoo xamante ne dinañ ko partager ak euh, askan wi pour ñi nga xamante ne intéressé na woon nañ si lépp formation certification si si blockchain euh, ñu am si accès euh, facilement mu si si si njëg bu yomb. beneen changement bi aussi mooy daaw daaw grand théâtre lañ ko defee woon mais c'était gratuit. te malheureusement gars yi boo ne newee c'est gratuit euh, mooy loolu boo leen di jox xam-xam bu gën a am solo sax euh, bu doon gis nga doon xaar ñaar wala ñett ñooy ñëw loolu moo tax ren bon ñu ne euh, dinañ ko def participation symbolique. Mm-hmm. Euh, de deux mille cent francs mm-hmm. deux mille cent francs nag mm-hmm. mooy njëgu sandwich mooy njëgu hamburger wala genre yooyu donc Exactement. c'est presque rien waaw mm-hmm. ah, ah, mettiwul te deux mille cent c'est beneen beneen beneen leneen li tax euh, ma naan c'est c'est symbolique mooy bitcoin c'est limité à vingt et un millions de bitcoin du mus a dépasser vingt et millions moo tax ñu jël chiffre symbolique de vingt et un mille cent francs te loolu après ñiy ñëw bu leen neexee mën nañu poser question ñu gën leen a mhm. euh, mbir mi donc euh, affaire bi daal noonu la mhm. demee. bii mhm. pas euh, foog nga enregistré wu au moins ñu xam ñaata nit ñooy ñëw. foog nga jënd benn ticket de deux mille cent francs pour les deux jours communication bi dina changer PME yi dinañ ci gis seen bopp. étudiants yi dinañ ci gis seen bopp. Mhm. mu doon ci cadre boo xamante ne grand théâtre la. Mhm. am na ay séeréer yoo xamante ne mosuñu teg seen tànk grand théâtre li <laughs> occasion la pour ñëw. pour ñu ñëw foofu daal incha allah. Eh, yaa ngi doon séeréer de man bàyyi ma rek. <laughs> te aussi beneen ah. beneen beneen innovation. Euh, Ibu ah. mooy ah. Euh, dañu bëgg aussi mettre en en avant. Mm-hmm. Euh, suñu suñu suñu production locale. donc bitcoin ku koy wax ñun du ñu yem rek si si théorie dañu bëgg pratiquer déjà à chaque fois bu ñuy def ay ay meetup dañ siy profiter pour euh, distribuer ay ay satoshi maanaam képp ko am portefeuille ñu envoyé la ay sat nga xam affaire bi ni mu gaawee nga testé ko nga gis waaw gisal sa bopp donc bii pa bëgg nañu déjà moo am ay échange de satoshi mais aussi ñu woon leen ni mën ngeen jënd tel et tel et tel produit en payant en bitcoin te ñun li ñu tànn mooy ay mm. produits locaux suñu ay entrepreneurs yoo xamante ne dañuy si suñu ay produits locaux mm-hmm. ñu invité leen ñu mm-hmm. ñëw mm-hmm. exposé seen ay produit utilisateurs yi wala participants yi bu ñu bëggee teste a achat vente ñu tester ko si si produits yooyu gis ni mbir mi c'est c'est possible. c'est réel daal mooy en gros. innovation yi par rapport ak euh, édition édition wu daaw bi non mais am na solo parce que euh, li nga mujj wax noonu daf ma am solo trop parce que euh, cest à comme xam nga sénégalaisement li ñu doon faral di def te ñu te ñu te ñu te ñu doon noo ko si suñu sunu français yi mooy on faisait beaucoup de speech quoi day ñëw waxtaan rek dem waxtaan rek dem waxtaan mhm. mais je pense que pratique bi am na ci solo démonstration bi am na ci solo euh, même mhm. pourquoi pas euh, ñi ñëw bëgg créer ay ay portefeuille sax ngeen aider leen am ay atelier aider leen ñu créer seen portefeuille fi ñu taxaw daar daar tu vois et je pense que tout le temps tout le temps si meetup yi dañ leen téléchargé leen tel portefeuille ñu won leen. en en physique. merci mais mais mais maa xam nga ni man ba léegi amaguma portefeuille amaguma ko. non moom dinaa xëcc say ah bi ngay def. Euh, <laughs> bi may ñàkk def bi may ñàkk def podcast yi daal. te duggoon naa ci testé ko pendant trois jours di ci wër di xool documenté wul testé <laughs> téléchargé application yi demee mais daal foofu laa ci yem ba léegi ba léegi foofu laa ci yem. mais foog nga dimbale ma yow yow dinaa loolu. <laughs> waral loolu ah. mooy parce que ah. comme foofu laa bëggoon intervenir ouais c'est parce que da ngeen di yem ci surface exactement c'est vrai mhm. maanaam doo leen sóobu doo gars yi mhm. dañuy ñëw taxaw ci tefes bi nii mhm. xam tuuti après baay ah, waaw si te buñ demoon ba ci biir xam li ci ne ko bàyyi moo tax tamit am na aspect bu <laughs> grand di wax bu am solo waa may jaay bitcoin bi mu baax sax <laughs> dinaa indi am na lu wax dama bëggoon ci affaire. waaw vas-y vas-y y allez demal. waaw dama bëggoon revenir ci affaire wu euh, deux mille cent franc yi. parce que xam nga bitcoin dafa toll jamono boo xam ne xam nga lépp luy juddu bees rek. Mhm. dafay prêter à confusion. Mhm. Mhm. kon fu mu nee nii dafa toll foo xam ne dañ koy tuumal. média yi dañuy jékki-jékki bitcoin perte na quatre vingt pour cent. bitcoin def na lii am na ñu perte seen alal ci bitcoin wala ci crypto comme an nga. parce que ñi ko bëggul dañuy xool ni koy tuumalee ba nit yi duñ si dugg nit yi aussi ñoom liñ siy xool a ah, kii nekk na si millionnaire kële nekk na si millionnaire pourquoi pas man ñëw dugal sa xaalis nga perte xamoo noo ko dugalee ban moment nga war a dugal na bitcoin nu muy fonctionner nga ñëw nga dugal nga perte nga nga jaay yëpp nga ne ah lii arnaque wala ak arnaque jot a am boo xam ne dañ lay wax xaalis inscrireal dugalal defal ni indil nit mooy mooy système pyramidal mooy ponzi pyramido yi dugalal nit nga am nengoon nengoon donc tey jii pour nit yi comprendre ni ñun boo xoolee déjà parcours bi meetup bi c'est gratuit chaque meetup ñu ñooy indi euh, nan laa ko mën a bi laay mën a wax ah njogonal bi ñoo koy indi maanaam dañuy fu voilà dañuy fournir l'eau le la nourriture les fruits tout dañuy dañuy teg ñëpp à l'aise gratuit mm-hmm. logistique bi te loolu foog nga jëndi ko nga transporter ko nga indi ko yëpp daanaka nuuru au début sax moo koy def moom kese. Hmm. donc y a y a aucun on n'attend rien en retour maanaam amul luñ siy seen lu dul def du sociale ak gars yi mën a comme surtout ñun africains yi ñoo gën a sonn parce que technologie day génn tubaab yi exploité ko wala ñi ñu si raw exploité ko après ñëw fi exploité ñu ñun. Hmm, alors que buñ ko maîtriser da ngay ñëw pour exploité ñu xam nga ñu saa taxawal fële heureusement que bii yoon. am na ñu ñu taxawu ba ñu maîtriser ko comprendre kon fu mu ne ni même deux mille cent francs yi ñun bëgguñu ko def parce que boo associer joxe xaalis ak affaire terme crypto rek ax nag day yeewu ci ci wu nit ñi mais li ñu daal daaw lan moo ñu daal comme que affaire bi sociale la même daaw ñun suñu xaalis des na ci heure bi may wax ak sax am na prestataire boo xam ne amel nañu six cent mille francs bëgguñu ko jox depuis un an te lépp social la ñun lépp dañoo dem ñaan ay entreprise ne leen bëgg nañ def lii entreprise yi ànd ak ñun ne ñu ah li ngeen di def baax na mm-hmm. ah, ñu ngi koy saluer bu baax kon am leen voilà mm-hmm. accompagner ñu mm-hmm. léegi ñu jël loo xam ne ay sept cent personnes inscrites ñu ne ah kon il faut ñu jël ay matuwaay yoo xam ne sept cent personnes yi dinañ leen teral bu baax ñu def loolu ñu rendre compte ni que ci sept cent yi inscrits euh, genn wàll bi ñëw comprendre nga te kon matériel logistique bi ñu fay. Mhm. nit ñu ñu fay. Mhm. ñu ñëw ñu taxaw. doo mhm. xam ne amul njëriñ. mais fay nañ ko. engagement yi yëpp quoi si voilà moo tax ñu ne léegi. pour être sur que. lii du ñu dalaat. ñu ñu war a dem ba di def lu ëpp te doo xam ne maanaam duñ ko njëriñoo. parce que ñëpp ñëwuñu. dañuy ñaan nit yi juste. Mm. benn kii bu symbolique. maanaam mm. mënoon nañ ko sax def vingt et un francs CFA wala deux cent dix francs CFA. deux mille cent franchement du dara quoi franchement. voilà affaire yooyu. juste pour que ñu ne. Mm-hmm. ci ci suñu xalaat bu gàtt. ku teg deux mille cent francs maanaam du ko teg ci nen quoi dina ko teg ba pare dina ñëw. kon ñun à partir de base de données boobu ñuy am dinañ mën a déployer logistique boo xam ne day méngoo nombre de personnes buy ñëw comme ça kenn du gaañ loolu kese kese la mais ci mais ñun Bitcoin Sénégal li ñuy def ci mbirum Bitcoin tout est gratuit mu suñu laajte kenn dara formation gratuite meetup dañuy jël suñu temps suñu énergie gratuitement jàngale expliquer boo créer ay groupe yoo xam da ngay poser say questions ñu teg la bonne des fois en rapport ak ay experts yoo xam dañuy liggéey de bàyyi say liggéey daal di la expliquer gratuitement kon il faut que tamit nit yi jàppale ñu te comprendre ni que fii nekkul fay pour ñëw lekk sa xaalis parce que deux mille ne change rien mais mhm. ñu xam ne dañ ko def pour mën a mhm. calculer mhm. Euh, mën a xayma daal ñun ñun lan la ñu war a def pour organisation bi sans gaañ loolu kese la macha allah macha allah non mais je pense que c'est loolu euh, neex na dégg te te loolu c'est compréhensible et je pense que même euh, euh, auditeurs yi xam nañ ko ñu participants ñu war a participer xam nañ ko parce que en fait initiative bu nekk foog gars yi di ci di ci di si jàpp initiative bu nekk aussi foog gars yi euh, sentir nañ ñoom aussi ñu ngi ci biir quoi je pense que ku joxee sa xaalis aussi dinga xam ne yaa ngi ci biir te doo doo doo doo bañ a dem à moins que nga empêchement bu mag quoi. alors mais mais mais dañuy avancer tuuti ci yeneen question yi parce que am na yu bëri yu ma bëgg a xamaa tu vois ci affaire bi euh, c'est-à-dire tey. maa ngi gis euh, ci seen euh, ci seen site bi euh, dinaa def information yëpp ci description podcast bi maanaam Dakar Bitcoin Days point com maa ngi gis ne am na ay ay speaker yu bëri yoo xam ne dinañ ñëw ku ci mel ni Claude Bernardi Bernardini ku ci mel ni Gilles Kadignan ak sama xarit bi Mamadou Dof bi Mamadou Diagne ay ñu Makhtar Diop Mohamed Diouf Vladimir Joseph Jo Nakamoto. ah mais kii moom dafa dafa jël turu waa xanaa. <laughs> Ah, ah, kii bëgg na bot ko. fan ah, su <laughs> ah Mouhamadou Nourou bi moom moo def euh, moo nekkoon ci kii bi ah. waaw donc Mouhamadou Nourou y' a Babacar Lo Alphonse Meoun y' Sébastien Ramos y' a Mamadou euh, Modou Sall Idrissa Seck ñu koy gën a xam ci Idi y' Sosten. et il euh, y a Chelsea Youth André alors je pense que ñii ñëpp dinañ nekk ay speaker dinañ waxtaan ci affaire mais bu ma bëggoonoo xam exactement euh, lan ngeen programme ci ñaari fan yi comme ça nit ñi am benn aperçu donc duñu spoiler nag wax la mooy xew yëpp mais euh, ci ñaari fan yi premier jour bi lan ngeen programmé deuxième jour bi aussi lan ngeen programmé parce que ñii pour que ñii ñëw aussi xam euh, lan mooy leen xaar ci ci bés bi. bon fi ñu toll nii programme journalier bi c'est pas encore défini parce que am na clôturé guñu sax speaker yi am na mhm. ñeneen ñuy proposé wu ñu ngi mhm. tànn thème mhm. ñu ngi dispatché thèmes yi mais loolu yàggatul parce que comme daaw benn application sax lañ defaroon de gestion de programme boo xam ne képp ku ko téléchargé Dakar Bitcoin Days lay tudd da nga koy téléchargé képp ku ko télé benn genre web app lay doon quoi da nga koy installé sa application sa téléphone boo ko ubbee dina la jox programme bi kon tout sera prédéfini avant sax ni ñi di ñëw dinañ ko am en live léegi pour donner une idée ci tour yi nga cité affaire yi par exemple on va parler dinañ waxtaan ci bitcoin comme monnaie légale maanaam bitcoin comme xaalis maanaam wala kopar boo xam ne moom la mhm. nguur nangu hmm. est-ce que loolu mën na ne mënul ne est-ce que am na dëkk yu ko def am na am na exemple dëkk yoo xam ne def nañ ko ba pare yoo xam ne bitcoin la ñuy jëfandikoo euh, chaque jour pour fay jënd affaire yooyu am na wax tamit ci réglementation bitcoin ci àdduna bi bitcoin fu mu toll état yi nguur yi euh, nan lañ ko classé nan lañ ko définir dinañ wax ci bitcoin entre PME yi ni ñuy defee seen échange parce que daanaka Afrique dafa métti liggéey surtout booy liggéey à l'international nga am benn PME bu ndaw war a def ay achats et tout c'est compliqué ay autorisation de change ay kii fii c'est tout ça c'est alors que Bitcoin moom benn devise la boo xam ne c'est universel un Bitcoin fii mooy un Bitcoin ci àdduna bi yëpp kon su ma naree jënd benn marchandise en tant que petite entreprise ma bëgg jënd dara Chine su ma ko weccoo ci bitcoin ma ñu xayma ko muy par exemple zéro virgule un bitcoin zéro virgule un bitcoin laa koy yónnee mu yónnee ma sama sama paquet sama xaalis du ma nekk fii di daw di changer ko yuwaan gars yi lekk ci taux bi après ma dem changer ko lii état bi naa ma non il faut nga am autorisation bi affaire yooyu noonu yëpp du am voilà ay sujet yu mel noonu ñu wax euh, tamit ci bitcoin ak transfert d'argent nan la mën a woyofal mbirum frais yeeg yooyu noonu ci mbirum transfert. thème yu bëri ñu ngi fa ñu ngi wax ci arnaque surtout. parce que mhm. année bi on mhm. s' est rendu compte que ay EFPC ay Tesco boutique ak ñoom yi wax pré mhm. PetronPay am na yeneen ak yeneen a ah, bëri na. boo jëlee EFPC kese courant deux mille vingt trois. Euh, selon les chiffres euh, publiés ñu ngi ci un milliard quatre cent je pense un milliard deux cent un milliard quatre cent. Ah qu'on a pris au Sénégalais. Ah. am na benn vidéo bu auditeurs yi tapé YouTube. Euh, FPC arnaque et tout am na comité bu gars yi créé pour euh, jéem a récupérer seen xaalis benn collectif yu dem gis avocat et mais ñi ngi interviewé ay entrepreneurs sénégalais maanaam ñi ngi xarmat chaque jour ñoo xam ne dugal nañ si quinze millions am na ñoo xam ne dañoo dem abbi abbi man sama mbokk chauffeur am dem ab euh, pas chauffeur mais ay xaritam comme dañoo dugal affaire bi benn ñaar ñett mu dox ñu dem di ab ay un million deux million seen yaay seen tante dugal gars dem ak xaalis bi parce que gëstuwuñu bitcoin gëstuwuñu sax ci lu ñuy dugg xam nga lépp loo dugg tamit yi faa mhm. nga ax nga xam si tuuti mhm, franchement mais boo gisee millions yi rek nga ne ayca waaw Sénégal nag dafa xaw a bëgg lu yomb tuuti nag moom voilà loolu la moo tax nag mhm. événement bi sujet yu mel noonu yëpp dinañ si wax même même bitcoin ak finance islamique am na solo parce que bitcoin tey jii boo xoolee yenn euh, kii euh, érudits et tout dem nañ ba nangu ni ça c'est halal parce que déjà dette amu fa riba amu fa dara amu fa comme or la rek looy jënd la loo xam ne pour pour voilà pour denc sa xaalis wala préserver sa valeur xaalis et mais comme que fu mu toll nii nit yi ñoo ko def actif financier trader yi mu yéeg di wàcc ñi di gagner ñi di perte moo xaw a jaxase carte yi voilà mais sujet yu mel noonu yëpp dinañ si wax te ay experts comme yi nga lim sànq ñooy ñëw di si wax. Mm-hmm, mm-hmm. incha allah macha allah non mais ça c'est ça vraiment top et je pense que programme bu leer na Idi am na loo ci bëgg yokk wala. non c'est bon euh, pratiquement <laughs> Sébastien kii na programme bi muy programme bu bu riche riche riche macha allah gëm naa ni. Euh, ñiy ñëw di ko fekkee duñu duñu am déception te dinañu rëccu sax lu tax ñëwuñu daaw édition précédente bi donc euh, képp ku ñëw daal jàppal ni doo sa temps mhm. doo perte sa sa te mhm. di nga si am euh, mbégte incha allah macha allah macha allah sama xel mu ngi dem si euh, ñi nga xamante ni invité woon naa leen bi ñuy waxtaan ci affaire bitcoin ku ci mel ne ñoom Fodé Diop ak ñoom maman bitcoin donc ñun ñëpp euh, maa ngi ni nuyu bu baax a baax te di xalaat ne aussi dinañ teewee si ci événement bi incha allah alors euh, alors euh, alors damay am benn fu may jëm tuuti ci benn question boo xam ne c'est beaucoup général cest à diir bëggoon naa xam tey jii yéen naka ngeen gisee tey cryptomonnaie fii ci Sénégal est-ce que yaakaar ngeen ne population Sénégal bi pare nañ. pour utiliser bitcoin est-ce que am nañ assez de bagage est-ce que am nañ parce que au li may faral di wax aussi euh, mooy Sénégal aussi du Dakar kese Sénégal aussi nekkul ñi jàng kese Sénégal aussi bu ñuy wax technologie nekkul ñi jàng technologie kese parce que ñi jàng dañuy créer ay solutions pour dimbale askan bi yëpp pour dimbale Afrique yëpp pour dimbale àdduna yëpp. donc innovation ak création de solution c'est pour di dimbale nit ñi amul xaaj ak seen amul ki jàng ki jàngul amul keneen ak keneen alors tey est-ce que yéen yaakaar ngeen ne tey crypto-monnaie am na benn impact bu rëy ci euh, population bi mais est-ce que population bi conscient na déjà ci loolu noonu. waaw question bi am na solo Ibou. Mm-hmm. bon déjà maa ngi commencé par wax ni. Mm-hmm. Euh, lépp lu ñu soxla si euh, si outils mm-hmm. am nañ ko. Mm-hmm. Euh, ñu ngi utiliser facilement orangement Money ak Wave via les les QR code foofu mën naa wax ni am nañu de l' par rapport ak dëkku nasaraan yi ñoom le plus souvent ay carte la ñu utiliser duñu rarement nga leen di gis ñu utiliser seen tel pour fay ak yeneen alors que fii lu yomb la man mii bu may dem wotu si bopp Kandi damay def may xuuf taf taf bu ma scanner web bi dox sama dox c'est la même chose avec bitcoin bitcoin boo yónnee bu la neexee scanner QR code bu la neexee dugal adresse bi def may ni nga dugal numéro téléphone rek loolu la utilisation bi c'est presque pareil donc euh, pour man foofu amul blocage li li li li am solo daal mooy gëstu mbir mi lan la nan lañ ko war a jëfandikoo am na ñoo xamante ne bon dañu naan crypto monnaie dafa compliqué non c'est pas compliqué li compliqué xëy na mooy euh, fonctionnement bi ci ginnaaw mhm. mais philosophie bi mhm. c'est facile à comprendre mu ngi mel ni oto nii rek mhm. instant eh, yi Dakar oto yi gën a tooy. Mm-hmm. ñan ñan ñoo koy dawal. Mm-hmm. du du du yi. waaw exactement. <laughs> waaw ku ku si paan ku si nooy def est-ce que yaa koy dépanner surtout non ah, ah, ñoom bu ñuy jënd oto dañuy dañuy dañuy définir seen objectif. Mm-hmm. dañu naan oto bu tooy laa bëgg. bu ma yóbbu tel ba tel lieu ñu ngi koy def. waaw donc euh, euh, booy dugg si Bitcoin. soxlawoo di xam euh, li nekk ci ginnaaw parce que loolu am na ñu koy vérifier c'est open source am na ay développeurs yoo xamante ne vérifier nañ ko du loo xamante ne kon ko nëbb code bi c'est visible képp kuy développeur am yenn compétence yi mën nga vérifier code bi bu la nga dugg ci comme comme différence bi entre Linux ak euh, Windows mm-hmm. xam nga mm-hmm. du ben ah, côté sécurité du benn mm-hmm. donc euh, Bitcoin pratiquement loolu la amul dara lu ci lu ci nëbb mm-hmm. te utilisation bi c'est facile ay xale yu ndaw man mm-hmm. demoon naa fii Diourbel mm-hmm. demoon naa Louga won naa ko ay xale ñu ko ñu commencé di ko utiliser donc lu lu xale di utiliser mag mën na ko utiliser problème bi mooy objectif yi du benn man je préfère li ma gën a sax mooy di si xale yi parce que ñoom du xalaat profit donc c'est facile nga mm-hmm. jàllale si ñoom mm-hmm. euh, les fondamentaux de Bitcoin alors que mag ñi boo leen waxee Bitcoin mm-hmm. euh, dañ naan dinaa ñëw nga expliquer ma nan lay amee ay millions déjà ñu ngi xalaat na ñoo ngi xalaat côté gain ñu ngi xalaat gain rek la seen problème waaw gain bi waaw <laughs> effectivement te aussi euh, Sénégal fii ñi si ëpp ñu ngi siy dugg si wàllum trading Mhm. dañuy dugg rek ne xaar ma jàng trading mhm. xaar ma dugg ci alors que mhm. loolu am na lu nekk ci ginnaaw y a des fondamentaux yoo xamante ne boo ko kiiwul trading da ngay dem lakk fa say laaf <laughs> waaw loolu <laughs> ñu ñu bëri ñu ñu ngi koy def te aussi boo gisee ñu invité si si speaker yi y a des journalistes y a y a te information dafa doon lu am solo si mbirum euh, bitcoin ak cryptomonnaie am na ay niveau yoo xamante ne boo fa duggee te amoo information bi da ngay gaañu. yi di si quelques mois di nga gis même suñu média lu koy di wax waxu bitcoin c'est parce que àgg na soixante mille dollars wala soixante dix mille dollars ñoom ñëpp ñu siy wax instant biñ siy wax. Mhm. Sénégalais yu bëri daw. Mhm. ñu ne xaaral ma daw gaaw i mhm. daaw gars yi waxoon nañ si si Dakar Bitcoin Days xaaral ma daw gaaw jënd ko à soixante mille dollars alors que ñun biñ siy wax. mu ngi woon à vingt mille wala trente mille dollars ñu daw euh, fonds d' investissement yu bëri yoo xamante ne positionné woon ñu depuis le début gars yi ñëw dugg ci à soixante mille dollars ñey jaay affaire bi rës c' est parce que gëstuwuñu wuti wuñu information yi information lu am solo la si si mbir mi waaw donc loolu yëpp bokk na si li tax ñuy créer événement bi donc utilisation bi du du doon lu lu metti l'essentiel na ñu am base yi xam philosophie bi lu lu am solo la kër bu fondation bi dëgërul euh, mooy loolu daal mm-hmm. donc xam-xam bi daal xam-xam bi moo jiitu information bi moo jiitu. bi moo moo jiitu waaw. waaw mais sinon utilisation bi. Mhm. utilisation bi méttiwul. méttiwul en moins d'une minute mën nga télécharger sa benn wallet. Mhm. léegi dinañ leen expliquer mhm. différence yi entre les les les portefeuilles ak yooyu. ñu xam fan la ñuy jëm. non je pense que tey opération opération opération bi gën a am solo aussi à faire euh, bokk na ci def benn euh, communication bu mag ci. Euh, bitcoin ak cryptomoney ñu joxaat ko euh, place am fii ci Sénégal euh, pour que nit ñi bañ xam ne bañ a jàpp ne mbirum arnaque kese la parce que c'est vrai que tey am na ñoo xam ne boo waxee bitcoin rek seen xel li muy njëkk dem arnaque la donc il faut que tey je pense que ñu defaraat communication boobu noonu. waaw Ibou. Ah ah. pour pour pour rappel la mm-hmm. dernière fois demoon naa à Louga. mais mm-hmm. balaa may commencer. Mm-hmm. présentation bi. vidéo wu EFPC laa teg pour gars yi xam. ñu xam arnaque yi ni mu présent au Sénégal ak impact yi te bi ñu seetaanee vidéo bi ba pare puisque ay boy la woon amoon na si benn pas bu jóge woon à à Touba mu ne yii man li perte naa si sept cent mille donc pour te dire euh, affaire bi euh, dem na ba oh, yemul Dakar ah c'est pratiquement toutes les régions ñi nga ñi nga ñi nga jàpp ni presque pratiquement jànguñu sax ñu ngi si doon dugal seen xaalis du l'importance di leen di ko expliquer aussi a wolof. waaw yooyu yëpp bokk na si. non je pense que foog ñu organiser waat beneen émission boo xamante ni euh, dinañ wax ci euh, bitcoin. Euh, mais d'une manière basique pour que nit ñi a xam parce que defoon nañ ko bu yàgg mais au fait bi ñu njëkkoon def c'était un peu technique tu vois pour ñu wax fan la blockchain bi jógee ba dugg ci bitcoin bi naka la ñuy utiliser donc c'était beaucoup plus technique mais je pense que mën nañ defaat benn épisode de sensibilisation boo xamante ni dañuy dugg ci façon arnaque yi am euh, dugg ci naka nga ko mun a moytoo ak voilà mun nañ ci ànd sax ak yeneen euh, partenaire yoo xamante ni mën nañu gën a appuyer ci loolu incha allah je pense que lii nga ci wax nii am na solo trop euh, beneen question bi mooy laaj je pense que sax jot nañ ko répondre léegi c'est-à-dire naka lañ ci mën a participer on l'a déjà dit ku bëgg participer euh, benn montant symbolique rek ngay joxe muy deux mille cent francs du dara moom ngay génn léegi yàqu ko jotee ko benn hamburger wala nga voilà <laughs> wala wala wala wala copine bi seet si la nga jox ko mu passé ko def tu vois mais <laughs> aussi nañ ko voilà nañ ko <laughs> utee xam-xam nañ ko utee xam-xam tey nag ci ci ci ci décembre bi tu vois benn journée rek la ñaari journée la hmm. et imagine toi ñaari journée deux mille cent francs donc journée bi ñaata la mille cinquante voilà c'est ça mais c'est ça mais 1050 da ngay fay par jour waaw 1050 da ngay boobu noonu waxuma la dara mais moom ngay jëndee Precia léegi naan ko Precia xaw mais mais mais yaa ngi fi di fay ay formation bidon wu trading ay cinquante mille. pour benn jour wala deux jours. maa la wax loolu xam ne da ngay non seulement da fay ñu raconté la ay conneries. da dem dugal sa xaalis xam nga ay parrainage lay wut. ngeen inscrire via lien dem perte seen xaalis après mu ne waaw bon après c'est fini ah nga perte mu jeex non mais gars yi mille cent francs par jour du dara mais buñ leen waxoon cinq mille sax par jour dafa baax loolu loolu man cinq mille ngeen ko war noo def nag yéen tamit euh, bu ñu jëlee non mais boobu ne mm. ne dafa perte sept cent mille dama lay jox quelques chiffres yu sew mm-hmm. parce que EFPC dafa basé wu ci li ñuy wax minage de bitcoin ok maanaam da ngay dugg par exemple ñoom seen business model c'était quoi da ngay dugal euh, deux mille par exemple exemple boo dugalee deux cent mille chaque jour ñu verser la onze mille huit cent déjà yow loolu boo ko déggee boo nekkee nit bu am tuuti éducation financière da nga xam ne lii mënta nekk parce que ça veut dire qu'en vingt jours amortir nga sa investissement ba nekk en positif xam nga léegi ñoom lan lañ la doon wax dañ la ne xaalis boobu ngay dugal ñoom dañuy jënd matériel de minage teg ko muy miné gain yi moom moom ngeen di séddoo te bitcoin même bu dul bitcoin même bu dul yeneen cryptomonnaie maanaam pour pour nga koy miner pour être rentable maanaam pour nga koy miner ngay mën a am bénéfice booy jox investisseurs yi daanaka c'est pas moins de dix à vingt million pour benn machine benn ordinateur buy miner comprendre kon il maanaam nit ñi mm-hmm. il il suffit ñu def deux trois recherches ci net bi wala poser deux trois personnes yu xam mm-hmm. euh, maanaam mm-hmm. bërëb bii day proposer business model bi est-ce que lii dëgg la est-ce que mën na nekk kooku bu xoolee da ne lii mënta nekk nga téye sa xaalis parce que daanaka pour jënd benn machine bu indi waxuma ne machine bi dana la indi dix mille machine bi da non seulement da nga koy jëndee ay euh, six millions sept millions ba dix millions ça dépend ci performance am. Mhm. ba pare mu lay indil ay cent francs par jour cent francs deux cent francs gis nga parce que dafa am paramètres yu bëri ça dépend période bi nga ko installé prix bitcoin bi fu mu toll bitcoin performance yi muy def durant période bi wala par rapport à la fin du mois loolu yëpp lay jouer donc rien que ñoom li ñu proposé rek boo boo gëstu woon tuuti da nga xam ne lii ay dóorkat lañ. mais malheureusement manque de vulgarisation de sensibilisation. Ah, moo indi loolu noonu. non mais dinañ ci doon moom dinañ ci jog incha allah voilà pour jéem a sensibiliser di ñëpp quoi ci affaire bi alors def nañ presque léegi ñu def une heure de temps euh, damay ni bàyyi juste ngeen wax ñu tey par exemple képp koo xamante ni tey bëgg na dugal loxoom ci euh, événement bi en tant que euh, en tant que ku leen bëgg ku bëgg jàpp ci événement bi pour mu gën a dox bu baax naka la mën a def leen aussi. Bon, nous, ah, oui. en fait, euh, euh, côté communication, nous sommes présents. ñu nous ici, presque plateforme yëpp ku nekk Facebook di nga gis Dakar Bitcoin Days LinkedIn di nga gis Dakar Bitcoin Days muy YouTube muy euh, TikTok muy Instagram pratiquement ñu ngi si si plateforme yëpp. ku dugg si benn page u Dakar Bitcoin Day di nga si gis numéro téléphone yi wala ku ñu recherché si réseau yi muy Sébastien Ramos muy man Idrissa Seck muy euh, Bamba communication euh, Bamba Sall euh, di nga ñu mën contacter au moins bu fekkee da nga bëgg jàpp si événement bi am na yoon bu fekkee da nga bëgg participer aussi te aussi pour rappeler participation bi il nga inscrire parce que foog ñu am euh, euh, base de données yi xam ñaata nit ñooy ñëw. donc ku bëgg participer foog nga inscrire ru. Mhm. lien yi ñu ngi ci pratiquement toutes les plateformes. macha allah ça c'est bien. Ah. franchement euh, merci beaucoup euh, maa ngi ni jaajëfal bu baax a baax wala je pense que émission kii bi événement bi dina jàll dina Euh, ça sera intéressant ñi ñuy ñëw aussi di participer ci événement bi dinañu euh, li ñu doon séntu yëpp dinañ ko am ci événement bi loolu moom c'est sûr et certain parce que man euh, chiffre yi ma gis daaw te xam naa ne ren mooy gën a ngand donc y aura que du bonheur ñëpp dinañ kontaan et ñi nga xamante ni bitcoin moo bëgg nañ ci xam davantage maa leen di ñaax bu baax geen ñëw fekkee si événement bi 2100 francs pour participer pendant deux jour ci benn événement du dara donc essayez d'investir pour am xam-xam essayez d'investir ci technologie yu bees yi ngeen xalaat ne dafa jaable wala dafa compliqué mais dem leen gars yi wan leen ne leen di c'est pas compliqué c'est pas jaable et que aussi mën na leen jëriñ ci seen vie de tous les jours mën na leen yombal affaire yu bëri c'est-à-dire à un moment donné il faut que nit ñi aussi di nangu euh, di changer seen euh, façon gis-gis yi di xool yi découvrir yenn affaires yu bees pour que mun a wu ci ci ci àdduna bi di doxee donc il faut pas avoir peur euh, waruñ ragal changement waruñ ragal innovation yi ñëw mais dañoo war a dem song innovation yi xool li ñu ci intéressé ci suñu fii ñu ñu utiliser ko mais bu ñu ko daw muy entreprise yi muy nit ñi voilà euh, personne lambda yi ak ku munti doon quoi et je pense que aussi gouvernement bi aussi war na ci jàpp bu baax a baax Euh, je sais pas ndax am na ku nekk ci gouvernement bi dañuy déglu on sait jamais mais bu fekkee am na ñoom aussi war nañ ci dugg seen loxo bu ñu gisee genre initiative yu mel nii pour gën ko jox doole pour gën ko porter plus haut ba nga xamante ni tey dakaar dina nekk benn ëpp boo xamante ni képp kuy wax ci wàllum xarala yu bees ci euh, Afrique de l'Ouest wala sax ci Afrique euh, doo ko du des ginnaaw incha allah alors lan moo nekk seen mot de la fin balaa ñuy tëj épisode bi Sébastien. bon sama mot de la fin du daanaka benn la mm-hmm. presque mm-hmm. suñu mbokk yi gestu mm-hmm. gëstu bàyyil di souvent am na phrase bi ñuy faral di wax fii ah no tubaab yi yàlla da leen may wala non affaire tubaab bapare ba pare buñ tourné naan ay yéeféer lañ ay lii leen kon yàlla mënul may ñooñu ba pare di ñu seetaan nañ jóg ci suñu bopp ah comme ñun ñu ngi koy ñaan guddeeg bëccëg na ñoo jóg ci suñu bopp di nangu comme ni nga ko waxee di nangu jàng di nangu ibbi suñu xel ci xarala yu bees yi parce que jamono peut-être jamono suñu pap yi metti woon parce que information bi c'était plus difficile d'accès mais jamono ji ak internet ci benn clic mën nga am sa réponse wala mën nga am sa information kon amatuñu excuse pour naan non ñu ñooy mujj wala on est à parce que yàlla lii yàlla lee non nañ jóg di gëstu xam ci lu ñuy dugg ba pare di jéem a tamit jiitu ci dara. Mm-hmm. Mm-hmm. comme que tey c'est à la de tous maanaam ñëpp mën nañ si jot. Mm-hmm. nañu bàyyi xel di gëstu di bàyyi tamit affaire bëgg am xaalis teew mu teew loolu musul am. ça xëy na dina am dina am ñi siy dal ay loterie lay doon. loolu da koy tekkal ak euh, da nga koy kii ak euh, LONASE par exemple de ak PMU affaire yooyu mm-hmm. Mm-hmm. mais xaalis nii mm-hmm. yeewu am million ci crypto wala nekk amul loolu du yoon nañ liggéey di gëstu xam ni c'est à la portée de tous am nañ opportunité jàng ko mën ko te loo xam ne luy luy ñëw la maanaam ñëw na ba pare mais comme ni nga ko doon waxee ci question bi sànq daanaka installé gul bu baax parce que nit ñi mm-hmm. pareeguñu mm-hmm. maturité boobu amaguñu ko mm-hmm. mais nañ ko xoolee ci internet ni internet ñëwee léegi nekk universel ba des fois sax sa maam boo xam ne yaakaaroo ko woon mi ngi am téléphone am di whatsapp noonu la bitcoin di instauré wu fii ak quelques fii ak quelques années boo xam ne ñëpp dinañ ko mën a utiliser fay yónnee xaalis et cetera et donc la gars yi bàyyi xel ci affaire yi surtout di gëstu pour éviter arnaque yi. Mhm. te incha allah dinañ gis utilité wu bitcoin bu baax a baax. macha allah merci beaucoup Ramos euh, franchement c' est hyper gentil euh, li ñëw ci émission bi yow yaakaar naa la première fois nga teewee podcast Woloftech et ñu ngi la remercier bu baax a baax du ñàkk ni incha allah ñu bu baax tamit tamit. waaye merci beaucoup jërëjëf ci invitation bi. merci beaucoup merci beaucoup alors Idi lan moo nekk sa mot de la fin. waaw Ibou xanaa di insister si information formation bu ñu xaar daal euh, ñu ñu koy imposer. Mhm. mbir mi comme niñ ko waxee c'est c'est c'est général. Mhm. amul limite. Mhm. amul benn euh, frontière. donc euh, man li may faral di dégg si sama sama gars yi ñi ma jege te bëgg ko kii. dañ naan lii du du pour ñun. déjà foofu teg nañu barrière. te affaire bi tôt ou tard dinañ ko utiliser. Mhm. te li may ragal mooy ñu ñëw imposer ñu ko fekk gars ñi xamuñu si dara donc ñu gëstu xam li lan la fan la jógee ak nan lañ koy jëfandikoo balaa ñu ñu koy imposer Salvador loolu moo doon problème bi def nañ ko monnaie légale alors que population bi xamuñu woon niñ koy utiliser donc ñun bu ñu xaar ñu ñu koy imposer. pour di jéem a gëstu nan nan lañ koy jëfandikoo lu lu am solo la te aussi bon di rafetlu invitation bi di di la encourager wolof euh, teg moom macha allah initiative bu bu am solo la maanaam euh, suñu xarala yi ñu xamal ko askan wi si si suñu làkk mu di mu di wolof lu lu jara lu jara jàppale la daal macha allah donc di la jaajëfal si si invitation bi di invité aussi population yi ñu intéressé si podcast bañ a yam rek si vidéo YouTube wala TikTok ñu xam ni podcast. Euh, yoon la boo xamante ma mën nga si jàng lu bëri. Mhm. a c'est waaw di di di di la jaajëfal si mhm. avancé yi nga jëf euh, si si mbir moomu mhm. di le remercier aussi si invitation bi mhm. di nuyu aussi euh, ñëpp ñu ngi déglu incha allah jaajëf merci beaucoup Idri Idriss wala iddi wala nañ ko def Idi rek merci beaucoup iddi merci beaucoup euh, Sébastien Ramos si invitation bi ci li ngeen ñëw ci invitation bi voilà ñu ngi leen di remercier bu baax a baax di wax auditeurs yi aussi keneen leen samedi chaque samedi comme ni ñu ko waxee ci suivre bi rek chaque samedi dañuy def ay épisodes yoo xamante ni ci sunu benn programme bu ñu teg la actuellement ci wàllum réalité virtuelle ak tout ce qui est vidéo ak yu demee noonu ci la ñuy waxtaan ak métaverse euh, mais chaque mercredi aussi dañuy euh, def ay épisodes yoo xamante ni dañuy promovoir yenn euh, entreprise yi wala ñu promouvoir yenn initiative yi ak yu demee noonu donc podcast Wolof Tech pour ñëpp la fi nekkal d'une manière générale pour écosystème technologie bi nekk Sénégal maanaam xarala yu bees ci Sénégal wala moom la nekkal e voilà du ñàkk ne dinañ découvrir daal yeneen euh, initiative yoo xamante ni ñu ngi koy waajal surtout ci décembre bi wala euh, sax ci élection yi di ñëw ma wax leen ko déjà élection yi di ñëw man je pense que ñun en tant que des ñu yëngu ci wàllum technologie foog ñu am suñ baat ci biir quoi donc loolu yëpp ñu ngi ñu am ay initiatives yoo xam ne ñu ngi koy teg euh, et je pense que ñu ngi nit ñi dinañ ko découvrir euh, voilà xam ko incha allah allez merci beaucoup euh, ñu ngi leen di jox dig daje incha allah ci beneen yoon ci podcast Wolof Tech